na leen wóor ci ni sëñ Tuubaa la ñu gaayanteel sëñ Tuubaa la ñu topp sëñ Tuubaa mi ñu topp nag ku topp ku topp ci moom ci yoon ci ba nga topp danaa joxe lu ko waral ku jë ku ku jaayante moom it yonente bi nga jaayanteel te ku jaayante yonente bi yàlla nga jaayanteel ina li seen yu bàyyi noona ka inama yu bàyyi noona allaha man it ci ne rasoola fa xadaaba allaha bismillahi rahmaani rahim asalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi nii seetaan ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare eh, ñu ngi ñëw fii nag tey ci tuuba ci kër Serigne Abdou Serigne Cheikh Diakhaté mi nga xam ne ku nekk xamoon na ko digganteem ak Cheikh Abdou Lahad Mbacké ñu fekk fi doomam ju tell ji di doomi Cheikh Abdou Lahad Mbacké di soxna May mbakke bintu Cheikh Abdou Lahad ñuy waajal màggaluk Cheikh Abdou nag ñu fas yéene ci fàttaliku jikkoo sëriñ bu tedd boobu nga xam ne moo doonoon xalifatu ñetteelu xalifa seexul xadim doonoon koo xamante ni liggéeyam rek daanaka mën nañ cee wax li nga xam ne dañ ciy teg bët li nopp di dégg tamit jàpp naa ne mën nañ cee jariñoo bu baax a baax a baax muy yàlla dogal na waxi Seex Abdul Ahad bokkut ci wax yi réer ni alxuraan nga xam ne dañ koo dajale ba mu ñoŋ dajale àddisu yonante bi ba mu ñoŋ ni lan dajalee waxi Seex Abdul Ahad Mbàkke ndax njariñ la moo tax nag ñu dellu siwaat fii di ko fàttali ngir waajal màggalam gu tedd gi nga xam ne dañ ko ciy fàttaliku te Serigne Touba njëkkoon koo màggal ci njaareem muy ñaar fukki fan ak ñett yi nga xam ne ci la gane woon àdduna ca njaareem boqatul mubaarak ñu ñëw nag fekk soxna su tedd si toog ginnaaw soxna si buñ la siyaaree ñaanal la yàlla may la fan wu gudd lool ak wér di ñaan bis bi yàlla na ko sunu borom boole ci at yi nga xam ne moom ngay gën di defal Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di ko fàttaliku ñu la ciy ñaanal yàlla may la fan wu gudd ak weer ñu ngi nii nag toog ak sëriñ xaadim moom itamit doon doomi soxna si soxna si jox ko kàddu ngir mu waxtaan ñu fàttali ko jikko yi sëriñ Abdou Lahad Mbacké sëriñ xaadim naawun la nuyoo siyaara la ñu jox la kàddu salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, sëriñ saalihu ñu ngi lay siyaar bu baax a baax euh, di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax euh, di la ndokkeel di la jaajëfal ci jéegu yi di nuyu waa al xadimiya ci eh, di leen siyaar di leen eh, tatagal eh, di bég ci seen liggéey yu am solo yi nga xam ne yéen a ngi koy def jëmale ko ci liggéey Serigne Touba bi maanaam bokk ci li nga xam ne mooy gën a wone ak gën a feeñal liggéeyu Serigne bi ci moom ci mini meeg minum sëñ bek ci sen sëñ beeg taalibe sen bek cheikh sen bek yep rek euh, kàddu gi nak mom xamna daylu euh manam munta ñak ndax ñun manam ay taalibe sëriñ touba lañ yo xam ne jëfé ndigal moy li nga ne luñu war te ndigal mom fu xasse ba euh kàddu amatu fa jëf rek mo ci am te ki ñuy jox ndigal mooy ki ñu ko war a jox muy soxna may bint Cheikh Abdoul Ahad nga xam ne mooy sunu wayjur du sunu sëriñ di sunu lépp euh, tey na ngeen ñëw fii ngir am luñ barkeeloo ci jëmmi Cheikh Abdoul Ahad ji ci jikko ja ca melo ca doxin wa xam naa nag ñun xamuñu ci dara ndax euh, ay ndaw lañ bi ñuy génnee jamono fekk na sëñ Abdou Lahad maanaam nekk ci ak daanaka ak tàkkutoom nga xam ne ñun lu xam rek ci sëñ bi dañ ñu koo nettali waaye sëñ nag mooy koo moom naqari wut a xam ndax daa jëf ba wax ba kon kooku dana neex a ñun nag li nga xam ne bokk nañ ci ñun li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy roy ci moom ak di ko bàyyi xel ci moom mooy bëgg gi mu bëggoon Serigne Touba gëm gi ak doyloo gi ak maanaam maanaam daraja daraja ji mu amoon tam doyoon sëkk ci maanaam daraja mooy doon doom Sëriñ Tuubaa waaye moom gisul gisul woon loolu li mu gisoon rek mooy liggéeyal sëriñ gis liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci fit wi ak ci euh, pëstéefu gi ñun loolu bokk na ci li nga xam ne euh, lu ñu lu ñu marke ci moom la surtout nag li nga xam ne euh, jamono ji da soxla mooy Euh, liggéeyal sëriñ Touba ci njabootam gi loolu si ñëpp daal da cee taxawoon taxaw taxawoo euh, koo xam ne dafa jéggi dayoo man loolu bokk na ci li ma gën a marqué mooy koo xam ne njaboot Serigne Touba gi nga jiital euh, fàtte sa njaboot ndax koo xam ne li nga nekk Serigne Touba bu jóge fi lenn loo xam ne nee nga nee nañ si yëpp daal jël na ko defal ko ak njabootu boppam amut li ngay dégg mooy doomi Serigne diw doomi Serigne diw si yëpp daal defal na ko nangam si yëpp ko defal nangam. Euh, yooyu dafa nekk yoo xam ne ci mat gi lu ñu marqué la te jamono ji soxla ko ndax euh, boo xoolee jamono ni mu mel te njaboot sëñ Tuubaa gi ñu ci bari ñoo xam ne dañoo nekk nit ñu doylu lañ ñàkk lañ am lañ amut mënoo koo xam te jamono des fois day métti ci ñoom te ñooñu nekk ñu mat a bàyyi xel te njaboot sëñ Tuubaa gi da cee bari ñoo xam ne maanaam seen at bariwut muy ci sët yi ñi nga xam ne ay waajur lañ ci ñun te ñooñu surtout nag ci côté soxna yi te blad dan Lahad daan ci liggey ci lolu liggey bu am solo ta ñi nga xamne ne fi nekkal Serigne Touba te ñi doon ay kilifa wara baye xel lolu ndax lolu dafa nekk loo xam ne ñak ndax ño xamne say rak buñ jaxlé wala bu seen bu xonké japp na ne buñ bo jëlé Serigne Touba tek ñi bu lañu xalaat yow la kon war nga fexé def tel sorte ka ba lañu lay xalaat yow nga di xalaat xalaat gi ma mënut wess rek la war ci sa digënté ak ñom nga cey def sa day kàttan si yëpp laat loolu da cee liggéey ba nga xam ne kenn mënu koo euh, jam ci loolu beneen bi mooy digganteem ak taalibe Sëñ Tuubaa yi ñun taalibe Sëñ Tuubaa yi dañoo amel Sëñ Sëñ Abdul Ahad njukkal loo xam ne am na tàmbalikaay waaye amul yemukaay ndax tax na nañu xam kan mooy Serigne Touba tax na ñu xam nan nañu liggéeyale Serigne Touba tax na nañu xam tamit ñun ñooy ñan ñun Sëñ Abdul tax na ñu maanaam fulla ji ak jom ji ak gëm ni sëriñ Touba rek mooy fi ne gëm ni liggéey sëriñ Touba rek mooy taxa texe adduna ak àllaaxira loolu Sëriñ Abdou Lahad bokk na ci loo xam ne euh, ñun ñun taalibe yi def na ko ci ñun te loolu euh, yu am solo la loo xam ne ndax nit ki moom li koy jariñ adduna ak àllaaxira mooy li am solo te Sëriñ Abdou Lahad euh, liggéey na loolu ci taalibe yi sëriñ Touba yi beneen bi mooy dëkkub sëriñ Touba bi nga xam ne sëriñ Touba maanaam ñëpp xam nañu sëñ bi fi ko dëkk bi toll Sëñ Abdou Lahad liggéeyal na fi Sëñ Tuubaa loo xam ne leneen lu waaye di defaat da ngay soof rek waaye moom yoon wi da ko wane te lépp mat fan yee la ma euh, euh, sëñ Modou sëñ Seexuna mu sëñ Abdou Lahad mu soxna ko jël wan ay ay ay leetar yoo xam ne maanaam Baye Ibra Gaye mi nga xam ne moo daan séddale dund euh, yu sëñ Abdou daan séddale maanaam bi ma gisee bi ma gisee mbind yooyu yoo xam ne mi ngi jëm lettre yoo xam ne Sëriñ Abdou bind ci loxo bopam nga ne bàyyi Abdou Gueye moo ko dencoon maanaam Sëriñ ngi ci yim doon yim doon yim mu doon yu jox na ci kër diiné yi fa la daan jëm manam nga gis nam ko daan séddale mat ga mat ha ah, damay bañ tudd ay tur waye fini ne bu ma la gënal sama téléphone man na la gënal liste yépp nga gisal sa bop yo xam ne Modou moom ko envoy nga gis ci njabot seigneur Touba gi doomi seigneur Touba yi ni mu daan dan mu leen daan wàccuwaay bi ñu leen joxoon li leen daan jox nga xam ne léegi yëmale ko ci eh, ay magal rek tam xarit korite tabaski da ngay gis leetar yi nga xam ne sëñ daal moo koy bind sëriñ diw nañ ko jox nangam nga ñëw ci ba ci jigéen ñi nga ñëw ci doomi sëti sëñ Tuubaa am na ci ñoo xam ne seen i seen i taaw maanaam boo demee ci njaboot sëñ Tuubaa ñooy seen i taaw ñooñu liste ba da nga fekk seen i tur nga xam ne sëñ daal ñooñu lañ doon doon ay doomam doon ay doon ay ay ndaw defoon na leen nawle xam ne ci njaboot sëñ Tuubaa gi lañ bokk daan leen jox seen wàccuwaay kon yooyu dafa nekk yoo xam ne euh, dafa mat a jàngat ci jamono ji Sëñ Abdou day koo xam ne ku bëgg réussir ci sa àdduna sa digganteeg Serigne tubaa sa digganteeg liggéeyal Serigne tubaa bay boo nga jël Sëñ Abdou Lahad def ko référence ci jamono ji ñu toll man loolu laa gëm ndax mooy koo xam ne nekk na fi bu jóge fi wanuñu boppam Sëñ Touba rek lañuy ñuy wan kon kooku xam nga ne kon kooku euh, maanaam booy booy wër Sëñ man nga ne ñu kon kooku amuñu ak fayam dañ koy ñaan dañuy ñaan ci baaxu sëriñ Touba suñ Tuubaa mi nga xam ne am na lépp man lépp mu fayal ñu ko waaye daal nañ xam ne ñun taalibe bi suñ suñ yi amee nañ njukkal Sëriñ Abdou Lahad ndax fuñ mën a siggee ci àdduna jàpp naa ne euh, bokk na ci euh, ñi ko liggéey ci njaboot suñ Tuubaa gi te loolu am na yoo xam ne li ñu faral di wax rek li suñu kilifa yi faral moom am na ci yoo xam ne mu ne du luy génn ci ci ci ci télé Sëriñ Abdou Lahad moom dafa am yoo xam ne waxtaanu biir néeg la yoo xam ne lu lay jariñ la loo xam ne dañ nga ci jàngee lu bari kon kooku daal moom dañ ne xam naa ne dañ doon jéem rek dañ doon jëm ndax ndigal moom li ma wax rek ndigal moom jëfee rek waaye euh, sëñ Abdou Lahad moom ñun man moom sama jëm bopp su may wax ci moom man xol laay waxee ci moom yëg-yëg ndax man damay jàpp ne lu ma am ci àdduna sëñ Abdou Lahad tax lu ma am man sëñ Abdou Lahad tax te loolu mi ngi ko jaarale ci sunu waajur wi sunu waajur wi ci la ko jaarale ndax moom euh, mën naa la wax ne moo yar ñun ndax ñun sunu waajur bi mu fiy jugee mooy sëñ Cheikh Ahmad Jaxate bi mu fiy jugee 99 la boobu ay ndaw lañ waaye ci wan la sëñ ab liggéeyam ni mu ni mu yéemee maanaam moom fexe na ba ñun man de ma kante waaye man bàyyi moom jooyuñu ko. ndax fa suñu see jaxate waroon na taxaw moom da koo taxaw ba mat ko sëkk soog a place am nag soog a ñëw te loolu mën Sëñ Abdu Lahat lay gisaat foofu Sëñ Abdu Lahat gisaat foofu te euh, waajur la woo xam ne maanaam dañ naan wax sa bopp moom ci gàtt xel la bokk waaye man bu ma bu ma koy waxal ñu ma ko seexal dama naan moom euh, sag la sag la ci euh, yoonu murit sag la ci kuñ ko bokkal ndax wax dëgg yàlla fi teg tànkam. mooy la sëriñ bi bëgg man de wax di yàlla maanaam sama sëriñ sama waajur waaye royukaay laa ko def ndax li ma njëkkee jàngee ci moom mooy ak doylu moom soxna si te loolu day delluwaat ci Sëriñ Abdou rek ndax Sëriñ Abdou Lahad ko def ak doylu lu jamono naqari ndax des fois damay ñëw wax moom mënu ma sëñ mënu ma xaadim euh, lépp bàyyi ko ci loxo yàlla lu jot yomb yàlla mi ñu sàkk duñu fàtte li may wax ni maanaam lu wér la moom moom moom xam na xam xam na xam na loolu waaye loolu def na ko ci ñun te doylu mooy jamono jamono ji ñu toll ku la gën a riche riche dañoo yàpp ne ay milliards la ay kër yu rafet la ay oto yu rafet la déedéet riche mu ngi ci doylu te loolu suñu daal jàngal nañu ko te loolu man jàngee naa ko ci moom doylu moo tax loolu ñun ndaw ñi ak ñun ñu nga xam ne dañuy tudd di tudd Serigne Touba loolu nañ koy bàyyi xel nañuy nañ yar ci suñ bopp ci gën a doylu ndax mooy tax ëllëg doo réccu ndax la sëñ Abdou Lahad daan wax rek adduna moom eh, yëngoo lu yëngoo yëngu baaxoo waaye saabu bu adduna yëngoo rek day war yóbbu sa xel ca dal ga mooy tax bu dal amee rek boo defee loolu rek mooy tax bu dal amee doom kersa kon loolu nañ ciy bàyyi xel eh, tey gën a góor góorlu eh, te xam ne liggéeyal sëñ Tuubaa rek mooy liy jëriñ tey mooy liy jëriñ ëllëg nañ fas yéene doon ay dëgg dëggi taalibe yoo xam ne lépp loo xam ne mooy sagal sëriñ bi ci wax ci jëf ñu fi séeri cee rey suñu bopp loolu laay mën a wax tamit nag loo mën a loo mën a def ci sa xel loo mën a jàpp mënuñoo fexe fexe fexe fexe ba njabootu suñ Tuubaa gii fi ne doon suñuy kilifa mënoo fexe ba beneen kilifa ñoom la fi yàlla teg kon li ñu war di leen wormaal cër bi leen yàlla jox mënuñu ko yàq mënuñu ci ñaari salaamaaleykum ak luñ mën a wax waaye kon ñoom li ñu war mooy lay tax loolu di sàmm ñu fi seen caa ne bu fexe ba sac bi sutura ci lepp gën fe né té loolu ñun talibé yi ñun la war dañuy santat baaxa baaxa baaxa baax ci waaw mu dañu dañuy jëm rek waye ñi ngi santat bu baax té di wax eh, ñeen ñi nga xamné yeen ngi jàkkaarloog ñun lepp lo xamné wax nañ ko ci biir wax ci té mu doon lu safano, na ngeen xamné ci sama jëm ju xébu ji la rek ndax eh, ndigal liñ ma jox de bu ma sañon damay dama koy jëf ba mat sëkk zéro faute waaye nag ñun ay ndaw lañ xamuñu lu bari dañuy jéem rek jéem kon ñu ngi santaat bu baax a baax a baax a baax baax sëriñ Saliou euh, ci tew tawféex gi ngeen ñu defal bañ mën a am euh, maanaam euh, tawféexu liggéeyal soxna si ci ci lii kon loolu ñu ngi leen ci sant bu baax di ñaan ci barkeb sëriñ Touba barkeb Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne moo tax ngeen sol seen dàll bàyyi seen lépp fu ne ngeen dem fa ngir liggéeyal ko ci bisam bi yàlla na leen defal lu kawe seen i seen euh, site bii nga xam ne mooy alxadim alxadimiya li ngeen ci bëgg yéen a ko xam ah la ngeen ci bëgg yàlla na leen ko sëriñ Touba bu dee jëwriñ ji nga xam ne moom ngeen wax ne muy sëñ Mamadou Touré moom dama koo xam ci depuis beral Touba ah baayam moom ku ne xam nga ko Touba moom baayam liggéey jaamu yàlla rek la fa nekkee jàkkay beral ja ñëpp xam nañ ko sëñ Amdi noonu rek la ma sa mel moom du jaamu yàlla kenn xamu ko ci lu loolu ak gëm sëñ Abdou Lahad kon sëñ Mamour bu dee yëngu ci lu mel ni tamit ñun ñi nga xam ne nekkoon nañu moom ak beral duñu bett lu baax ko ñor xam-xam xam-xam ko ñor ak taalibe ko ñor liggéey sëñ Tuubaa ko ñor kon ni ñaan ci baaxu sëriñ bi yàlla ko sëriñ bi defal lu kawe njortam ak yéen ñum àndal liggéey yëpp ci barkeb Cheikh Abdoul Ahad jërëjëfati sëriñ Saali masha Allah jërëjëf sëriñ Xaadim euh, ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax baax ci wax ji rafet na te jàpp naa ne li nga ci wax lépp loo loo loo dund la wala loo yëg ci sa xol la te euh, li ci gëna a doon ki man moy tok gi soxna ci tok te lol dafa bax lol tok di def lo sa dom wala di def lo ci njabot gi dig na ñuy net ben xissa bu ñuy nettali go am damas mas a fekk ay xalé yu bay mu gis mbay ma mbay ma rafet lol mu ne len yena doon bay mbay mu rafet ñu ne ko waaw waye nak ñoko doon bay ak beuti ak beuti bay <laughs> waye ak yaay <laughs> kon lol lay tekk li muy waxal sëñ Abdou Lahad moom ci mëna wax ku ci nekk moom bu dee murit te damay wax ne eh, jamono yi ku ci amul ñeent fukki at moom boo xamee ci sëñ tubaa pas-pas bu dëgër moom sëñ Abdou nga ko jànge waaw pas bu dëgër ci sëñ tubaa xam ne mooy sëñ tubaa moom lañ war a liggéeyal ci sëñ Abdou nga ko xamee te loolu moom daf cee garoon bakkanam moom ñaanul woon sax eh, lu dul sëñ tubaa fekk ko fi maanaam fekk ko fi moom noonu foofu la tegoon liggéeyal sëñ tubaa kon jàpp naa ne jànge nañ ci pas-pas bu dëgër ak way tamit ci murid murit bu way deug deug nek ci lim wara nek ci seigne abdul lan koy jangé ta daf daan wax dégg na and ak seigne am satu daru muxtimale dem ci tolam yi xuma toli belal wala fu mu dem dem ak yéreem yoy rek dug ci bir bi mu ñëwaatee tok seigne am satu di wa tanal xaxam bi mu ne ko seigne am satu loy def ni ana xamone doomi soxna mbubam dañ koy xamé tak xaxam ak tak da <laughs> nek ci daara ja di ak ci tool ya. Ah, te mooy li nga doon wax ci doylu gi mu wax na li nga wax tamit ndeysaan soxna si moom wax da yàlla mënuñu cee wax dara ndax moom dafa sagal sëñ laat Lahat ak sëñ Touba ndax da yàlla kenn aw turam ku ko dégg naa nag ci nit ñi nga ko déggee nii rek aw turam a gën a law jëmmam te bu ko neexoon fu nekk mën na fay dem ak a dugg nàngam maay doomi sëñ Abdou Lahat maay taawam doy na sëkk waaye lépp luy sagal sëñ Abdou ci loolu lay nekk bañ na ko ba sëñ Abdou Lahat lay roy sax royul kenn ku dul sëñ ku ko xam ham xam sëñ ham Lahad da nga xam soxna sa mom sëñ Abdou lay roy rek <laughs> yal nako yalla sedd ci jikko ci si lu doy sëkk sëkk sëkk te yalla may ko aw fan wu gudd lol njabot gi tamit sun borom def ci barke bis bi ñuy fatali sëñ Abdou Lahad sëñ de mom bisab sëñ Tuubaa mom jaralon nako lu nekk wa lu nekk jaralon nako mirage jaralon nako na ko nangam kon bunde ay gor te daana wax ni nit de bu la lebalé teranga la ngay wax moy eh, kagn le bisam di ñew bu bisam ñëwee na nga eh, sok ko def moy as askor suñ ko lebalé day laaj kañ la bisub ka ko lebalon loola bisam nak ñëw na mu wara a doon ñaar fukk fan ak ñet ñu war fatali ku ci jang alquran lool jang xasida salatu ala nabi yoy mom japp na ne ko ko gënonu man amut jang alu alquran ak jang ko eh, dafa melni ni sëñ boko boo ko doon xool ci portal alquran da nga na alquran ju taxaw la boko doon ci berndel nit ak japp nit da nga na loolu ba jonni tey fi kenn mënagu ko cee dàpp man jàpp naa bu fekkee woon jamono jii moom <laughs> kenn du xam nu <laughs> muy bernde eh, loola nag wax yàlla feeñ na ci moom feeñ na tamit ci bëgg xasida yi sëñ Tuubaa yi daanaka sëñ Tuubaa rek xasida yi rek la daan waxtaane kon nag ñu ngi koy sant di ko ñaanal yal na yàlla dëkkale ko sëñ Tuubaa ci wetu rasulullah bisam bii tamit yàlla nañ ko yàlla mag yàgg màggal ci kanamu soxna soxna si lim yéene liggéeyal sëñ Tuubaa ci wàllu xam-xam ak wàllu liggéey yal na ko sunu borom jàppandil lool ci barkeb si Abdoulaye kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu dikkoon fii tey ci alxadimiya nekkoon ci kër soxna May Lawaat doon fàttali ko ak waajal bis bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp soxna si nag mi ngi fàttali kaamil alxuraan yi lu ko ci waaye di defal daal na jàng alxuraan yéenelal ko ko Cheikh Abdoulaye joxal ko ko addiya mingi ngi sant taalibe yi yëpp ci taxaway yi nga xamne da daanañ ko taxaw ci bis bi ak yi ko passé di ñaan yalla luñ ci am yalla nañ ko bokk ak Cheikh Abdou Lahad assalamu alaykum wa rahmatullah na leen wër ci ñi sëñ Tuubaa la ñu gaawanteel sëñ Tuubaa la ñu top sëñ Tuubaa ñi fa topp nag ku topp ku topp ci ñom ci yoon ci danga na leen wër ci ñi sëñ Tuubaa la ñu gaawanteel sëñ Tuubaa la ñu top sëñ Tuubaa ñi fa topp nag ku topp ku topp ci ñom ci yoon ci top da nga joxe